acca yaa doon nu say maam siggil nga diina jikko yónneen nga làmboo sëñ Mbay Si Mansoor waaw yaa doon nu say maam siggil nga diina jiko yónneen nga lamboo. yaa doon Maodo ci baatin. ci baatin yaa doon Sabay Mansour. tey ji yaa yor xilaafa gi sëñ Mbay Si Mansour. sëñ Mbay Si Mansour. waaw waaw yaa doon say maam. Mm-hmm. sigil nga diine ji jiko yónneen nga lamboo. irfa yaa day ka. yaa doon Maodo faaw yaay daal xilaafa gi mérite la ci sëñ Mbay Si Mansoor sëñ Mbay Si Mansoor ndeysaan yaa doon ci gil nga diine ji ci ko yónneen nga keroog quartier général. général xalifa bi sigil nga noo. sigil nga noo. soxna ay dada baax moo jox. sëñ mbay si man soore. sëñ mbay si soor. waaw yaa doon nu say maam. say maam. sigil nga diine gi. ci ko yónneen nga lamboo. ci génn ju man góor ngee. soxna ay dada baax. ñu ngi lay jaajëfal yaa xam sëñ Mbay Si Mansoor sëñ Mbay Si Mansoor ndeysaan yaa donnu say maam sigil nga diine ji ji ko yónneen nga lamboo yaay saagub islam bi ki yey saagub tariixa Cheikh saagub ti waawana nga sëñ Mbay Si Mansoor Mansour waaw yaa doonoo say mm-hmm. sigil nga ki ko yónneen nga lamboo Si deuxième de musulu ko àndal mu premier lii sëriñ Mbay Faal la ko wax sëñ Si Mansour say si Mansoor waaw waaw yaa doon nu say maam sigil nga diina ji ji ko yónneen nga lamboo ñëw leen ñu àndandoo àndandoo ñëw leen ñu àndandoo àndandoo ñëw leen ñu àndandoo àndandoo ñëw leen ñu àndandoo àndandoo yaari seen mbay si Mansoor ndax mu xool ñu baayam ba Bay Si Mansoor waaw yaa doon say maam say maam sigil diina ji ji ko yónneen nga lamboo way jublu naa mu neex sëñ Bay Si Mansoor ba mu wër ab duniyaa ci barke sëñ Mbay Si Mansoor sëñ Mbay Si Mansoor waaw yaa donnu say maam sigil ko diina ji ci ko yónneen nga umran tawilan bila durrin ngi la koy ñaanal am nga doxal ca kanam mbay si Mansoor umran tawilan bila durrin ñu ngi la koy ñaanal am nga ndam doxal ca kanam mbay si Mansoor kono umran tawilan bila durrin ñu ngi la koy ñaanal am nga ndam doxal ca kanam mbay si Mansoor

am nga ndam doxal ca kanam bay si man soo am nga ndam doxal ca kanam bay si man soo waaw waaw am nga ndam doxal ca kanam bay si man soo am nga ndam doxal ca kanam bay si man soo yal na yàlla dolli salaatu salaamu ci muxtaar wa alixil xurri barke sëñ Mbay Si Mansoor